ausbillahi min asheytaani irajim bismillahi rahmaani rahim hasbunallahu wa nihmal ñu ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp di doole sant seexul xadim ñaana seex mahamadul muntaxa sunu borom yàggal ko fi ah, di wax ne bërëb bi ngeen gis leen lenn ci leere sëriñ abdul xadir yi muy sëriñ abdul sëriñ abdul xadir moom moom makaan mi mu mel ne lii moom yaakaar naa gis ngeen ko ni mel situation yi ndox mi dem bu demoon na ba ci biir batiment bële biir kër gi moom daal man manees naa wax ne fenn foo xam ne ne jàpp nga ne amutoon ndox amul bagage yi yu ci ëpp ëpp yàqu na man nag démb ci ay 14 heures yooyu laa ko laa ko xool ci internet bi rek gis vidéo bi fekk ma tukki woon dem dëkk bu ñu naan Kébémer fa saasa rek ma am ci jaaxle lool njortoon ne lu ñuy tànq ci ay ay paan la ba ma fasaasa laa wax ne képp ku yaakaar sëñ Abdul Xaadir wala ngay sama soppe na nga ñëw ñu xëy ñëw fii ngir jéem a génn si ndox mi waaye bi ma jàngataatee ndox mi laa xam ne lii ay paan génnewu ko fi ma xalaat xalaat awmam pexe ci laa yàlla suturaal ma rek sama xel toq ci jëmm ju tedd ju ñuy wax sëriñ Isaaxa moom sëriñ Moussa mu sëriñ Basiiru bi ma ko waxee matul une minute baat ak tontu la mu def ci yitte joo xam ne ni da ngay xam ne maanaam ñeewantul na sëriñ bi ci jafe-jafe yi ah ba ma ko waxee nag sa mu boole ma lenn ci jëwrinam yi muy sëriñ Babacar Guèye moom it ma am ci taxawaay bu rafet rafet macha allah ñëw yaakaar naa bâtiment bële ku waxoon ne nit mën na fa duggaat da nga ko da ko koy yéem da nga naan déedéet munta ne. te bâtiment ba yàlla def na ci sutura bâtiment ba moom alhamdulilah set na wécc fi mu ne da cee yam boole ko indi fi ciment bu ñuy tabaxee yooyu yëpp ak jumtukaay yoo xam ne dañ koy nettoyé kon lii ci des boobu ba léegi camion yi ñi ngi ñëw di ngacc di yóbbu ndox mi moom mii mii fi ne bu ñele woon lii ba léegi moo mooy ndox mi da nga dee déet fekk li fi nekkoon démb ba ëpp téeméeri junne yoon boo xoolee wertu wertu ba ngay sénnale la ca kaw ne ca falanteer ba fa la ndox mi tolloon waaye boobu ba léegi oto yaa ngi dem di ñëw mu boole ci yéene ak di laaj saa su ne fu liggéey bi toll loolu nag damaa jàpp ne mooy eh, ak mbokk ndax li tax eh, tey ma ñëw fi yàlla suturaale ma nag jaare la sama kàddu li may tuuti tuuti eh, xel mu ma jox ma ne naawoo seex ma Cheikh Mamadou sëñ sëriñ Ishaqa man ba léegi lu ma yëm la lu ma jaaxal la waaye liñ naan yéenee xor rek ak li sëriñ bi wax fekk sa mbokkum jullit moo xam ne ni nattu dal na ko nga taxaw ci sa kemtulaay kattan moo taxit ba ma ko waxee Cheikh Abdoul Ahad moom sëñ Abdoul Xaadir dane ma santal ma ko bu baax fa sante yam ne ko fekk mbokkum jullit mu ameem nattukat mu taxaw ca fay googu même bu ma ko ñaanul doon fay googu bu ko dalee ak jëf jim ci jëfal sëñ Tuubaa dana xam ne dootul dootul dootul dootul nekkati ji jafe-jafe ba ilaa yawmi loolu nag mooy taw feex ji ndax moom mii bi mu koy def bu newoon fii la ko njëkkee sax nga ne guleet waaye yaakaar naa taxawaayu maire walla taxawaayu sapeur pompier la taxawee ci askanu Touba moom li may wax naan li ñuy rëccoo xam ci moom mooy liñ ko yéex a xam buñ teeloon a xam jëmmam fam fu mu mën a nekk dañ ko fay teel a mu ñëw ci dëkk bi ndax la Serigne Touba doon ñaan ci ay sëtam moom mi ngi ci. li tax nag lu ñu xawoon a naqari tuuti mooy sëriñ bi bi ko lii dalee képp koy am ay am mbokkam te ngeen séq sëriñ bi. te ngeen nekk ngeen nekk ci dëkk bi ngeen ay nawle ba noppi it ñu yore ñu yore liggéey ci dëkk bi woo na la ngir ñu wut ci pexe lu mat quatre jours yaakaar naa ko ne xam na ne gàmm ba ci suba sa la ba léegi solution amut waaye nag nee naa ko démb mbir mi sëriñ bi mu ne ma ne ko bu bu bu bu ci yow te xam ne nattu la rek te dafa dal waa Touba gépp waaye na nga xam ne sëñ Touba wàllu si na la ndax sëtub sëñ Touba moo fi yebal. ak njabootam ñu ñëw dinditi li kon sëñ Isaaxa la ñuy ñaanal di ko sant duñu ci dara kenn du ci dara waaye jëf ji jépp moom def na ko kër sëñ Touba def ko fu ne waaye nag fii da ciy gën a yàlla ndax gis nga néegub yàlla bii bëgg naa ñëpp gis ko muy néegub yàlla bii maanaam néeg boola néeg la boo xam ne maanaam sëriñ bi bi muy wër dëkk bi fii la daa bàggante di fi di di di di di di fi di fi wàcc di fi julli ay rakka gis nga ni mu mel kenn mënut fee joxeti waxtu suñu borom bi loolu nag di lu rus lu di lu metti fépp volontaire am ngir def fii ci gënoon a yàlla damay fàttaliwaat mbokk yi ne leen gis nga jullitam moroom ma wala nit ak mbokkam solidarité ak jàppalante rek la day am loo xam ne ne wax ak jëf la wax ak jëf nag ñun lool rek lañ ci am amuñ doole ji waaye jàpp nañ ne wax ngir ñu def sunu kem dolaay kàttan ka man def def nañ ko yàlla suturaal nañu sagal nañu ci sëñ Isaaxa moom sëñ Moussa mu sëñ Basiiru lii moo moo ko def te boobu léegi oto yaa ngi ñëw da caa bañ ba ne machine pompe sax danañ ko fi indi ngir fex génn ndox mi jëwrinam jaa ngi nii sunu wet muy sëñ Babacar Gueye kon moom la ñu ñaanal ngërëmul sëñ Touba li muy ko yàlla na ko suñ borom yombal te xéewal yi gën a yokk ndax bu yokkee rek dana baax si ñun waaye nañuy solidarité tey jàppalante te yàlla tax di masawu nag population Touba bépp waaye nag mbir yu ne day am situation liñ tuddee situation obligée day am na ñoo xam ne seeni mbir mun taxaar ndax fii taalibe yi dañ fi ñëw njaboot gi nekk fi benn néeg boo mën a wax ne nit mën na faa fi mu ne amut néeg yëpp fees fee ngay gis ki nit mënatu faa dugg loolu nag mënul xaar ku ne da koy xool ci sa bopp bu la daloon li ñuy wax ci suñ làmm yi nañ bokk mun a bokk li nekk sunu suñu biir xol yi ñu koy jëf kon nag ñu ngi jéggalu bu baax di wax ne sëñ sëñ Isaaxa daal moom sunu xol di jug si di ko ñaan la ak képp ku yaakaar sëñ Abdul Xadir jëf ji defal na ko waa kër sëñ Abdul Xadir yëpp waaw ñu ngi jéggalu nag wasalaamaaleykum wa rahmatullah néegub yàlla bii nag na nga wone ne mu mel yàlla bi moom lu ma ñor a ñor la te seexul xaddim dafay jaaroon di fi sakku di fi joxe waxtu suñ borom yi di fi julli ay rakka kenn mënutu fee julli fi mu ne kon loolu kenn xamut lu mu farlu gi moo xaw a des fii nag moom nii licence bi dafa ëpp kon nañ taxawti di jàppalante ndax inamal moomi noonu ixwa waaw te rawatina nit ak nit ak nit ak ay mbokkam waa kër sëñ Tuubaa yi ŋànk fii nañuy fexe ba di am volontaire lu mel nii donte nag état du Sénégal gis nañ ñuy def ay taxawaay waaye kii nag ñi nga xam ne nekk nañ ci dëkk bi te xam ne kii doomi sëñ Abdul Xaadir la te musu musta dem fu mu wurta dem ku ne xam ne ne këram gii ci lay yam wala museeti seeti taalibe masee su koo dégg ci lu naqari yàlla waaye sëñ bi wax dëgg yàlla natt bi bu ko dalee ñëpp war a ñëw man dama ne ñëw yi nag bi dàq mooy ñëw toog maslaa neex na lool waaye bi dàq mooy jéem a wuti solution parce que ñëw toog di maslaa metti na man gëm ma ne loolu mooy faj mbir te yàlla bu la joxee am xel nga ciy xelaat ak di jéem a dox ay jéego ngir mbir saafara wa kon nag maa ngi ñaan bu ëllëgatee nay mbokk yëpp di jug di jàppalante ndax jàppalante rek yàlla waxut kenn dara de ñu ngi jégalu nag wasalaamaaleykum wa rahmatullah